damaa bëgg a tontu ci liñ ma laaj ak liñ ma laajul yëpp bu fekkee ne am naa ci sama xalaat bu ndaw ndax fii waaw am naa ci sañ-sañ waaw euh, di leen jërëjëfal ci euh, yitte bi ngeen am ci laaj yi ngeen laaj di wax ni ñetti laaj ngeen laajte fii benn bi mooy lu tax procureur bi xaarandi ba waxtu bi naan man damay woote li xewoon ñaari at ci ginnaaw di ko teg ci ndoddu euh, Ousmane Sonko. di wax nii dafa am lu yoon euh, diggee yoon dafa ne procureur de la république su bëggee su fekkee ni bëgg na def dara yoon may na ko ñetti at ci ginnaaw balaa boobu muy euh, dugg ci mbir mi fukki at ci ginnaaw te fii ay fukki at lañ ne mu mun ko doxal su ko neexee léegi nag lu tax procureur bi xaaroon procureur bi mu ngi dépendre ci ministre de la justice di dépendre ci état mais procureur bi dafa am loo xam ni boobu 2021 bi mbir mi di xew dafa am lu xewoon li xewoon mooy Adji Sarr xale boobu moo xëyoon suba yóbbu porte plainte am gendarmerie ne diwkat def maa def nangam ak nangam ak nangam naka sudul noonu ñépp taxaw yuuxu ne lii mbirum état la état moo ci bëgg dugg di bëgg a dóor ay daan Ousmane Sonko ñu maandu ci mbir mi président de la république ne santuma kenn fii muy wax ci wax ji donte sa commentaire laajuma la ko na ci ñëpp maandu ba mbir mi sotti ñu maandu bu boobaa procureur bu ñu woon dolli ci lii kon ay yuuxu dina jib ci Sénégal naan kon ba complot ba taxaw na ñoom liñ doon wax kon loolu la ñuy topp di ko gën dëgëral moo tax ñu maandu ba mbir mi àgg fii mbirum Adji Sarr daanaka donte féetewul boor it mel ni weng na ba pare mbirum Mame Mbaye Niang moom presque féete ne boor xanaa Cour suprême moo des léegi nag procureur dugal lii procureur nag du dugal rek mbir mi am na déedéet bu dugalee ba pare moom day naan lu tax mu dugal mbir mii mais kiy tax mbir mi sotti nag du procureur procureur ci tribunal am na ci wàll mais wàllam mu ngi taxaw rek ci waxam kii àttee kii naan am na walla amul njëkk juge d'instruction bi la ci mujjantal ba mooy juge bi àtte definitivement mooy li ñuy wooyu tribunal walla chambre criminelle bu fekkee chambre criminelle lay dem te ñu war a xam ñaar ci Sénégal ñaar yooyu dama ko bëgg a fàttali li tubaab bi wooye présomption d'innocence présomption d'innocence mooy fii ak tribunal àtte wu la ne lii yaa ko def juuj la baaraam defoo dara fi nekk nii Ousmane Sonko ma nga Sébikotane ca kaso ba mais ba tey deful dara balaa def dara faw ñu atte ko ba nekk yow la fekk loolu amul dañ jàpp ne deful dara loolu mooy présomption d'innocence beneen bi mooy boo dem ci tribunal am nga sañ-sañ sa avocat yi fekke avocat yi fekke teel sax man bi may njëkk doon avocat boobu avocat ama woon droit di dem police wala di dem gendarmerie léegi mën naa am ba la ne cuuti rek boo woowee avocat bi mu fekk si la foofu ci heure yu njëkk ya waxtu yu njëkk ya temps yooyu loolu amuloon dangay xaar ba mbir mi sotti ba ñu ne kërëb sa client ba dugal ko kaso yow avocat bi nga soog a ñëw mais jamono changé Sénégal changé ànd ak jamono donc moom ay avocat am war nañ ko taxawu war nañ ko layal war nañ ko feelu ñu ngi koy def xanaa rek man bu doon sama wàllu bopp man xon branco duma ko si dugal mais kooku moom eh, seen mbiru bopp la bugguma dugg foofu kon bokk loolu dañ ko nangul Ousmane Sonko ñu xam ni am na ko euh, li si des nag mbiru yoon la euh, dina xool moom ak ay avocat am nu ñu lijjante seeni euh, dossier suñu soldaar yi war a dem Niger di laaj ndax soldaar yi dañuy dem aha kañ mais balaa tontu laaj boobu di mën a wax ni lu tax ñu war fa dem li tax ñu war fa dem mooy coup d'état yi ñu ngi commencé nag di bëri te lu bëri di bëgg a soof te lu soof nag ñëpp dañuy dem ba yaakaar ni mooy yoon gis ngeen li am maali gis ngeen li am Burkina gis ngeen li am euh, Guinée ñu ne bii nag dafa doy te lu ëpp tuuru président Afrique yépp toog ñuy bokk CEDEAO en tout cas ne lii nañ leen def ay daan te suñu soldaar yi nañ dem yéen a ngi fàttaliku boobu bu ñu defee fii ak waa maali di waxtaan ak ñoom ñëpp ne CEDEAO amatul kuréel gu dee la tekkiwuñu dara ñamewuñu sax def ñépp di ko coow fii léegi nag CEDEAO tam bëgg a wan ne que lii mbir mi mun na ko taxawal Sénégal nag yore signature am nga xam ni moom bu euh, xas yéene ba wax dara ma sax di ko xaatim bu ko waxee rek moom dugal na boppam dootu ci génnaat astamaak bi mu ko xaatimee moo tax président Macky Sall nga xam ne mooy chef suprême des armées moo jiitee euh, armée yépp ne suñu soldaar yi dañuy dem naka la ñuy demee ak kañ la ñuy dem kooku ñoo ngi waxtaan seen waxtaanu soldaar euh, démb tey xëy na ëllëg ñoo ngi daje ñoom ñëpp chef d'état-major yi di seet mbir moomu naka lañ koy doxalee ba li président yi wax ñoom ñu mun ko wéyal ndaxte Niger dañ ko may benn benn semaine diir pour euh, ñu mën a bàyyi ñoom soldats yi nekk Niger wala alors suñu soldats yi dem foofu. ah di ko jeexale nag ci Elimaan li mu laajte maanaam Pape Alé moom lu tax ñu yóbbuwaat ko te journaliste la man gëm naa ni yéen journaliste yi da ngeen war a feelu seeni moroom man nit bu doon avocat lañ jàpp ma feelu ko mais nag ngeen feelu ko ci dëgg ngeen feelu ko ci xam moom lan la def fii presse dafa am liberté dafa am sañ-sañ sañ-sañ boobu suñu charte réew constitution bi moo leen kaka may ba pare dañ koy wéyal bés bu nekk la preuve ñoo ngi nii di wax mais dafa am loo xam ni itam sañ bi lu mu leen jox dafa am fu mu leen yemloo nekk avocat nekk journaliste wul nii yoon day dal sa kaw bu fekkee ne danga nga koo jéggi jéggi yoon nag mooy di wax loo xam ni méngootul sax ak sa kàllaama walla sa kàddu journaliste mais mu ngi dem di yëngal réew mi mu ngi dem ay yeneen ak yeneen yu garaaw yu mel noonu looloo yóbbu Pape mais du journaliste bu ñu mën a bu ñu bëgg a faagaagal ba di ko teg ay daan yoo xam ni yelloowu ko loolu la amoon di wax ci ton ci laaj yi ngeen laaj léegi